di sëriñu Abdoulaye Diop Xaas. muy sëñ Modou Kara. muy sëriñ Modou Kara. Mbacke Ball. Mbacke daf ma woo. nee na woo. ko moom. woo ko moom. ni ko. ni ko. sama doom nga. ni ko man kat sama doom nga. wallaahi ni ma yow yow moom xaas. ni ko yow xaas. sama doomu xol nga. yow sama doomu xol nga. yëkkati ay ay jàllabe yu bari. yëkkati ay jàllabe yu bari. ak ay mbaraakiis. ak ay mbaraakiis. jox ma. jox ko lii Thierno wax yooyu bis boobu. na wax euro yooyu bis boobu. ay 500 euro la boole moom. ay 500 euro ni ma lii la ko jox yóbbaale. lii la ko ca teg nag du ma ko wax. nee na la maa ngi gis ñaan gi. waaye mi ma booleeg Mahfouz mii. nee ba pare nag ni ma yéen ñaar ñi ànd leen. ni ngeen nekk benn. te xam ni maa leen boole. depuis nag. ay ati ati at. maa moom ba tey di gërëm sunu kilifa gi moom moo ma yar nee lu ñu mel moom la nee na nu moom eh, bu ñu seetaan noonu nee na bu nañoo mel noo xam ni di lii am tey doo am di gërëm sëñ xaadim waaye di gërëm sëñ xaadim mi eh, di président ADS man moom noonu laa koy présenté di xëccoo comme ñëpp yàlla yàlla may ndam yàlla na yàlla xam naa sëñ Bara dina la engagé moom comme gaanu ci loolu di nuyu borom kurus gi. waaye ma sàmba moom yàgg nañ trop. nee lépp rafet. di gërëm nag. damay ñëkkee ci ndeyaa. ñëkkee ci naa ko sumbulu mi ni ko na ko sumbulu. ndeyaa xewam. doon li li tudd la. waaye moom laa jàppee sama xew. ndax eh, lu xam ni bëgg naa ko rek. bala may àggale. bala def na ko comme damay bëgg attaque soxna si bi muy kii jaara bi muy jaara comme ni ma jaara am lu ko doon man ko ataay bi moom interdit ko fii ci kaw moom sag guddi nee waxtu wu ne dina ataaya xellil ma jox ma bala sedd kon maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla di sàkku ñëpp ñaanal ko yàlla yàlla yàlla dëgëral ko yàlla ko kàttanal ko kàttanal ko ba sëyam bii li ci bëgg lépp yàlla def di gërëm waaye di gërëm sumbulu mi toog ah, sumbulu wax rek xëy na sëyëg sëriñ sëriñ daa metti koo xam ni amaana bu wàccee balay na bu wàccee balaa dugg ci kër gi xaaju guddi bu duggee nekk ci téléphone bi waaye bu duggee ci téléphone bi lay nekk lépp nga muñ nee na lépp nga muñ nga toog nga jàpp te yàlla rek te yàlla rek tax ñun it ñu ngi ñaan nee na ñun tamit ñu ngi ñaan ah, maam jaara mi nga jot a gis nee maam jaara sell mii nga jot a gis yàlla na ko yàlla barkeel ko sutura moom moom xam na man xam naa. nee na yéen rek moo ci am solo. nee na na di gërëm di gërëm mu ne. moom kër gi. nee na moom laa gën a yërëm. ndax moom famille bi yëpp. ci loos bi la tegu. ci nekk jigéen la nag. doon nekk jigéen la mu yor pusoom. ak wëñam. di ñaw rek. di xam. nee xam. ci lu mu ngi ci. yaa luy yàq sax bu ko yëgee. dina ko defar ba pare man ma door koy ah, kon maa ngi koy gërëm. di ko sant di gërëm it Pape Sène waaye doo nekk dafa nekk ci xet-xet nee xam nañ fa mu ne dafa sori fa mu waaye teewaaye mat na doo nekk moo fi nekkee rek lépp mat na di gërëm mbër mu ne loolu nag amul njëriñ waaye dama koy gërëm. Ah, macha allah di ko ñaanal moom yàlla. defal ko jàmm. yàlla defal bàyyi kook soxnaam. bàyyi kook ba lim ci bëgg lépp. lépp li mu bëgg. mu def ko. ci barke yonent bi ci barke yonent bi. Tawfekh démb xaa xaaju guddi lañ déggante rek. may wax ma ne ko suba la yëf mun ma baal ma départ Touba. te boobu deux heures du matin. trois heures du matin yàlla xam na ko loolu tuutiwul kon kontaan nañu taw fee xeebuñu mu ji yàlla na la yàlla defal jàmm mboose kontaan naa di leen wax yéen ñëpp kontaan ngeen sëñ Bada jërëjëf <laughs> waaw waaw yàlla fa jàmm yàgg xaas yaa bëgg sa famille xaas ya bëgg say mbokk xaas yaa am yërmande xaas onk woo tayyi woo tabarkalla jàqoo jaaxle woo barke yonent bi yow macha allah tabarkalla li ñu soxla da koo def gi ja baay bu la mat baay ci taw ba nga koy xamee yaay ju la mat yaay ca taw ba nga koy xamee mhm. tubaarkàlla ngoone da ngeen a bokk ndey ak baay muy taw bu jigéen waaye tubaarkàlla tubaarkàlla laf cat yaay du def dara da ngoone ne fi waaye Ablaye Diop xaas nga nekk ak sarak yi dawoo daayoo puusoo paasoo kenn ku ci nekk war a am liggéey dugg ko ci par ci bërëb tubaarkàlla demoo fenn wutuwoo fenn yaa ngi toog yow li nga bokk ak li nga bokkul kenn xàmmeewul ñëpp nga boole waaye tubaarkàlla laf cat macha allah ngoone neex da lay ñaan yàlla taxaw la ñàkk jooy mii mu jooy nii du jooy fabriqué rangoñu mi kenn fabriqué ku kenn xëccewu kenn forcé wu ko dafa ñor ci moom ndax man dafa jeex xam dara waaye tubaarkàlla léegi léegi ngelaw dangaa yor saa waa ji nag laa ilaha illallah na boo déglul bu ma la bitee loxo bu la dara na xëy dangaa yor sama waa ji te tubaarkàlla ki la gën moo la gën waayi da nga yor sa mbalu bàcc li gënale ko jigéen ñi da nga yor sa mbalu bàcc li yiir ko da nga koo yor sagal ko danga nga koo yor dimbali ko da nga koo yor suturaal ko yaay bàyyi maam jaara doy la borom dërëm ak ngërëm dama ne tubaarikàlla saa waa ji saa waa ji nga téye saa waa ji nga dugal ci ruq bii saa waa ji nga xam ne tubaarikàlla macha allah bu bët sa jotee ñoo xam jeeg ji kan moo man bu bët sa jotee ñoo xam jeeg ji kan nanu yor ak ku nu yorul nga téye ko tubaarikàlla na mu tiwul ceeb na mu tiwul diwliñ tubaarikàlla macha allah nga téye ko rek risqué ko rek def ko première dame muy dernière dame muy fin de dame beneen dame bokkut ak sumbulu rek yow rek ah. moom képp barke Serigne Touba maa li man. maa fin de dame. Ah. déet déet déet bul gis benn problème. dama ni dama ni fin de dame ñuy géraat ñuy géraat ak sang yu baax yi Mbacke Balaye sax di leen ñaanalaat yéen tamit tam ñu am kóllëre ngeen ay nit yu baax ngeen tubaarkàlla ñun seen maamanu def leen nu mel barke Serigne Bamba. Sëriñ Bamba def ne mel ñu koy tiitaroo di ko namoo saa su ne di kon na fu ne di ko waxee fu ne di géewlu Sëriñ Bamba te kenn du ko dindi kon yàlla yàlla fal ca defal yu jàmm doon lañu sutura lii laa ne cee ñàkk dinaa ko wax ndax toogaay ba xam na yàgg yàlla yàlla dolli jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam jaara ba baani maam jaara buso